moo koy ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dikk yéen ci naafila guddi gi te mooy guddi juróom-ñeenteel gi guddi juróom-ñeenteel gi ku ca julli ñeenti rakka rakka bu ne fatiha ak tabati yedda ñetti yoon ak xul wallahu ahad benn yoon dees na ko ca bindal tuyaabab muñkat yëpp ak santkat yépp te dana mel ni ku wàcceb kaamil te dees na ko bindal tuyaabab ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at